c'est bon alors Ndeye kontaan nañu ci gis la fii. ah maa leen gën a kontaan maa leen gën a kontaan. lan nga gisee initiative bu Clara bi bi mooy deuxième édition muy sargal jigéen ñi. waaw macha allah ñun ñëpp a ci kontaan ah, ndax ah, wane na ni ah, lu mu tuddati jigéen moom moom jigéen bu mën góor la. ñaari loxo mooy takk tubéy te tey ñaari loxo mooy takk sër macha allah moom it di jigéen boo xam ni exemplaire la kuy daan dooleem ku bëgg réewam nag di liggéey. du toog xamul toog macha allah lii nag dañ ko ci encouragé bu baax a baax a baax di ñaan bu nekk ay édition yu baree baree bari ñëpp fekkee nag kenn bañ ko wute loolu rek la ñuy ñaan. sa jigéen bu jàmbaaxee série yu bëri dinañ la ci gis nga ci jouer rôle yu différent nan ngay réussir sa rôle foo dem rek am fa touche personnelle. waaw comme li ma wax léegi rek euh, euh, ndam la ndax euh, dama ni kon man liñ ma jàngal. kon maa ngi koy réussir comme que man maa koy euh, role bu ñu ma jox rek maa koy réussir formation yi ma def li ma def la dama def ay formation jàng ko lépp looy jouer rek rôle bu ñu la jox rek yow euh, war nga kaa génnee ni ñu ko bëggee loolu dong la formation la rek. mbetteel à polygame dem ba si valeur ban rôle nga sant boo ba nga joué ba nga ne noo lii moom euh, sentir naa ni mu réussir. noo man lu ma joué dama koy santir man du ma joué lu ma sentirul man lépp lu may génn gis nga te nga waaw mi ngi noonu xam nga chaque jour artiste du chaque jour rek da ko a war a gis si nii nii nii nii non non chaque jour rek da nga war a di varier rôle yi gis nañ ma si Ndeye Ndiaye mu xumb Ndeye Ndiaye bari histoire Ndeye Ndiaye bari coow dañ ma war a gis si Ndeye Ndiaye mu du Ndeye Ndiaye bu calme du dëgg polygame nag séri bi doy waar boobu moom polygame moom la ñëpp di wax macha allah polygame tamit ah loolu daal lañ ci bëggoon comme que nit ñaa ngi koy bëgg rek dañuy sant yàlla ndax nii la ko nit ñi di ñu ko kiiwee naan polygame polygame loolu moo taxoon ñu sonn ci tëju ay weer tournée mi ngi noonu Euh, mais série bi lan moo la ci gën a marqué retour sénégalais yi ñu ci am di la. si man maa ngi ci am retour bu ne ndeysaan. dala si séquence bu ma joué man ma gëstoon ñu tooñ ma si. ah surtout maak baax bi may def euh, ju yooyu xam nga rek yaa ma gën a xam. yooyu yëpp dañ ma si dañ ma dañ ma siy kiiwaat. Sénégalais yi dañ la bëgg yow foo dem dañ lay tagg dañ lay tiktok dañ Ndeye Ndiaye yow lañu gën a sonal. ndeysaan bi xoolal bëgg guñ ma bëgg rek man maa leen raw man maa leen raw fuuf sax billaahi wallaahi moo tax may liggéey di sonn bëgg di leen jox lu leen yi arrangé lu tax ngeen may gën a bëgg mi ngi noonu. dernier vidéo boo xam ne dañ ko gis euh, violence jànk bi ñu koy maltraité ak yooyu noonu yéen jigéen yéen ñi nga xam ne euh, lu bëri doo leen toog sax jànk yi leen di jàppale lu bëri la ba gisee vidéo boobu non man sama yaram da man loolu mënu ko seetaan sax wax dëgg fa yàlla ma ko ba léegi dama dégg nit ñi di ko wax rek mais seetaanu ma ko ndax man bëgguma affaire yooyu wax dëgg fa yàlla man moom néeg mun néeg mun néegu ma te loolu niñ ma ko expliqué jigéen bu néeg doo nga ko man di def mu moroomu jigéenam mi ngi noonu loolu moom mooy loolu mënu ma tax wax waaw waa dërie maa la gën a kontaan ah gis nga waa bis collection rek moo fi jaar dëgg du <laughs>